ngir am ay xibaar yu leer te ak lépp lu xew ci wàllum actualité nationale internationale aboneel gaaw ci sa bi di ASG Production tabax ko néegub yàlla def daaray alxuraan ci biir Bamba Fall li mu defal Serigne Touba le luxe le plus luxe moy def fi déjà néegub yalla bu ñuy jamo yalla bu nopi def fi barab bo xamanteni bi dañ fay jàngale alxuraan ay touti tank yo xamanteni bi ay innocent lañ ay jami yalla lañ la saw borom namm ci ñom ñu diko def ci ñom lolu mëno defal Serigne Touba lu ko ëpp. gis nga Serigne Touba lii nit ñi di xumtawoo ay Alolo aduna léegi sax dañu dañu ñun ñun ñun ñun mouride ndaw ñi dem ba dañu parce que bari na ñu lay ñaan lañ lay wax moy ñaanal ci milliardaire Serigne Touba <laughs> un milliardaire de Serigne Touba être un vrai musulman un bon musulman un bon pratiquant moko Serigne Touba soxlawul copar soxlawul dara Serigne Touba ngiruk dundam lim amone ci ils aduna, suñ borom kenn mais. alalu àdduna yitteelu ko ndax musul nangu xaalis ci loxoom Sëriñ Tuubaa daawul téye xaalis ci loxoom kon li ko ëppaloon solo liñ ko mën a defal liñ na leen seeree ne bépp murit boo mën a doon la nga mën a defal Sëriñ Tuubaa mu yëg ko te saf ko mooy foo toll ngay jaamu sa borom te di moytandiku nag di dugg leneen lu sa yoon newul ci lu la sama borom tere loolu dong lañ mën a defal Serigne Touba kon lii mu defal Serigne Touba defal ko barab bu ñuy koy jaamoo yàlla fii ci gox bii ci Gibraltar parce que man Gibraltar ñu bari dégg nañ ma mais xamuñu ma yéen fi laa dëkk dëkk naa fi ay at yu bari nekk naa fi lu yàgg sama njaboot gi ma Serigne Touba booleel nekk fi dëkk fi juddoo fi yaroo fi màgge fi lépp nekk fii ma nekk ñoom fii sama soxna nekk fii dëkk fii. juddoo fi yaroo fi màgge fi ndeyam ak bàyyam nekk fii seen kër a ngi fii ba léegi kon fi laa dëkk. kon buñ fi buñ ah. délégué de kon buñ fi ñu defalee kër sëriñ Touba ñu man di fa jaamu yàlla di fa jàng alxuraanul karim di fa jàng xasida Serigne Touba yi yéen ndaw ñi nga xam ne yéen fi nekk tey ndaw yi Serigne Touba maam Thierno mi ko jiite. da ngeen koy ubbi def ko daara daara Serigne Touba jo xamanteni bi da ngeen di wut ay kat ñu nek fa parce que bari na tay ay mag ak ay gone yu leen di rom xamuñu farata xamuñu sunna bu ñu xanté deug te yalla rek tax parce que bara bu Serigne Touba la fa mo wax leen li deug de bu ma kenn mere nak kenn ku nek nak lamb ci sa bop rek fo ca dajé sa bop rek faxasal mu set nang koy faxasal nak moy da ngay fexé ba yow lolé mangi ci yow nga dem fexé mu mat ci yow ndax nit bu da nga dund ba doon mu kalaf war a toll ci yor soxna wala nga yor ko wala nga war a tollu ci am borom kër wala nga am ko te mënoo sangu farata mënoo jàpp feroo iji mënoo julli ñaaw na ci ab jullit képp ku mu dal nag na nga xam ne lu bon dal la la kat la mën a def nag mooy jël suñuy matuwaay xam ne ay jullit lañu ay doomi jullit lañu gëm nañ yàlla gëm nañ yonent bi gëm nañ alxuraan gëm nañ bispeñ gëm nañ malaayika yi gëm nañ Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ne am na ngërëmal boromam bu ñu yàkk bu ñu wàkkiloo ci moom ëllëg suñu borom dinañu dimbale suñu néew doole suñu diggante ak moom kon nañu fexe ba la ñu gisoon Serigne Touba weesu ci ak dundam def ci dundam gépp mu jaraloon ko lu ne ñu sacrifier suñu neexinu àdduna yi te dem fexe góorgóorlu loolu nekk ci ñun. maam Thierno na ngeen ko ubbi góor ñi jigéen ñi man fee ca Sikori mbokk taalibe yi li ñuy jàng dama ni nañ ma ko bindal traduire ko en français et wolof bu ma noppee ma def ko ay livre ñu joxe ko àddee kon ça sera la même chose ici Amna na mag ñoo xam ne ñi ngi toog am nañ ker say ñëw waaye man ngeen a wut solution dee leen ko def ci ay këyit yu ndaw Diko ko joxe di ko distribuer ku mënta ñëw it mën a toog ci néegam léeg-léeg mu ne ngunum ngunum ngunum ngunum xool li mu koy mu maîtriser ko ñàkk ko ma ne bu mu ko teree def kenn ndax buñ nee sangu farata njàpp waaw julli lenn lu ci nekk dafa am ay farataam boo koy def te xamoo lay farata ja xamewoo lay sunna sa jëf jëf moo fa nekk form moom moo fa nekk waaye yool ba amu fa parce que benn baat kese moom ngay bàyyi ci tàmbali bi la ngay def lépp dara amu ci muy li jiitu muy yéene yeneen ak yeneen ak yeneen soog a soog a agsi kon il faut que ñu jàng xam li ñu sama borom digal ak lim ñu tere ñu jëfe ko kon nañu góor góorlu ci loolu Bamba Cheikh ahmed Bamba encore merci bëgg nga ma té lool waaye toguma damay ñibi <laughs> <laughs> madame le maire bougan vous êtes yene ngi yene yene ngi nek ensemble gor len bu baax fi ñu jàpp ak ki ñu góorgóorlu len té nak na ngeen xamné aussi responsabilité bu mag mo nek seen kaw bu da ngeen am ñaari mbubb yu ngeen sol li ngeen nga xamante ni bi da ngeen koo sacrifier seen bopp ci seen wàllu dundinu àdduna ak li nga xamante ni bi dafa dox seen diggante ak Serigne Touba kon li dox seen diggante ak Serigne Touba moom ngeen di fóotee mbub mais mbubum zaayir mais moom ngeen koy fóote ba mu set wecc fu mu toll di nes nesi bu rafet lool ba ku ko gis ku ne bëgg koo bëgg sol am yéene sol ko fexe leen ba mbubb mi bu mu tilimi ci seenu yaram nii ci seen i wax nii ci seen i jëf li ngeen bëgg bu ngeen ko laajee Serigne Touba te doxalee ko nii ma leen ko waxee Serigne Touba dina leen ko wamatal ba teg ko ci seen loxo nu mu ngeen ko bëggee te du ngeen ci sonn. Hmm? bu leen saaga bu leen xuloo bu leen wax lu ñaaw bu leen def kenn dara. kon yéen it loolee laa leen di dénkaat loole laa leen di dénkaat ndax am naa dama am ci yéen ñaari sañ-sañ ndax Serigne Touba mi ñu bokk sëriñ Touba baaxee ma boole ma ci boppam. tey bu ngeen nekkoon ci dara ma fekk leen fa jox leen ndigal dama cee am sañ-sañ. Hmm? beneen bi ci des yéen a ma ko may ci seen bopp mm-hmm. man it may naa leen ko ci sama bopp loolu rek laa leen di ñaanal di ñaan nag mbooleem taalibe yi nag ñun ñii fi teew te teew fi ci sëriñ Touba rek tax kenn ku ci nekk am nga aajo nga yàgg fi rek la incha allah. dégg nga waxaat soo ñëwaat nañ ne ñëpp àggu suuf la toog loolay ndigal. Ah! nga gën a sóobu nag gën a jiiku gën a dox. gën a gën. <laughs> na rek